Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. La Commission nationale pour a réuni beaucoup d'acteurs autour d'un de renforcement des capacités des spécialistes et la culture en plaidoyer pour la mise en œuvre de la Convention 1970 relative à la protection et objets culturels par rapport au trafic illicite d'objets culturels. à l'issue de la rencontre, le docteur Massamba Gueye au micro d'Odile Minkilan. On parle ce sont des mots qui sont très distincts. La question, c'est des voleurs. Ils ont volé des biens à des peuples, ils ont détruit des communautés. Comment faire pour que tout cela soit rendu de la façon la plus idoine, avec les mesures coercitives les plus, euh, les plus extrêmes pour ceux qui actuellement sont en train de faire de notre pays et de la sous-région où il y euh, des conflits, des zones de fuite de nos biens culturels. Donc pense que oui, le Sénégal, comme toute l'Afrique de l'Ouest, euh, la situation du terrorisme aujourd'hui, nous un lieu de passage de ces biens-là. la, la, la convention euh, de la section de droit de, de, de, de l'UNESCO et de l'UNESCO, comme on appelle encore, des Nations Unies, qui avait déjà élaboré un texte où, au niveau du droit privé, tout est réglé. C'est déjà de sensibiliser les populations qui comprennent que les gens qui viennent chez eux, qui les objets et qui leur donnent de l'argent, qui leur font signer des papiers, comme des trafiquants de drogue. De sensibiliser les élèves, de sensibiliser les parents et de sensibiliser les population pour qu'ils comprennent que la perte du patrimoine, ce n'est pas la perte des objets, c'est la perte d'une identité. Et c'est pourquoi cet atelier peut être important. C'est comment utiliser euh, l'école, utiliser les, les, les, la communication sociale publique, comme on mobilise les gens quand un virus arrive. Ici, c'est un virus culturel extrêmement dangereux qui fera que dans cent ans, aucun renvoi à notre imaginaire ne sera disponible au plan physique comme immatériel. Mais le plus dangereux aujourd'hui, c'est quoi C'est que ces discours, ces objets-là, quand on les prend et qu'on les amène ailleurs, mais on leur fait raconter une histoire qui est fausse sur nous. Ces objets qui étaient des objets esthétiques, des objets qui étaient fonctionnels et religieux, deviennent juste des objets mis dans une maison où la personne ne raconte pas la fonctionnalité de l'objet, mais la conquête de l'objet. Le discours change. Ces objets, quand ils reviendront, Est-ce qu'ils vont continuer à raconter le discours de l'autre, cette parole qu'ils nous ont volée, ou est-ce que nous devons réinventer un discours conforme à 2021 Vous voyez que la question elle est très grave. Ce n'est pas juste une question de, de sanctionner, il faut sanctionner sévèrement, il faut des, des lois qui, sont, qui soient extrêmement lourdes pour que ces personnes qui trafiquent ces a là puissent être vraiment jugées comme des délinquants et de grands délinquants. Le professeur Malik Ndiaye, de du musée d'art africain Théodore de l'IFAN, a également participé à la rencontre. Le voici au sortir de l'atelier au micro d'Odile Minkilan. Cet atelier est organisé par la Commission nationale pour l'UNESCO et qui porte euh, la Convention de 1970 contre euh, le trafic illicite. Donc c'est un atelier qui arrive à son heure parce que on remarque que depuis quelques années, plusieurs initiatives sont prises pour lutter contre le trafic illicite des biens en Afrique. Malgré cela, le trafic continue toujours. il fallait faire un atelier national de diagnostic afin de pouvoir trouver les stratégies pour circonscrire les questions mhm. et trouver des réponses. Donc on peut dire que cet atelier a un impact extraordinaire dans le secteur pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que c'est un atelier qui permet de faire converger différentes euh, spécialités, je dis différents professionnels, les forces de défense et de sécurité, les professionnels des musées, les administrateurs culturels qui sont dans différents secteurs. Mm. Parce que pour lutter contre le trafic, il faut une coordination, il faut une convergence euh, des vision il faut également une coopération efficace. Il faudrait que cette coopération ne soit pas ponctuelle et temporaire, mais qu'elle soit une coopération formalisée de manière permanente et régulière. Et c'est la raison pour laquelle des rencontres comme celle-ci autorise une, des synergies qui permettent de mieux circonscrire nos problèmes mmh. afin de mieux lutter efficacement contre le trafic illicite. Sama Néné c'est le tout nouveau single des frères Thioune un single qui allie la musique sénégalaise et les inspirations hispaniques voici justement Khali Thioune l'un des frères Thioune qui revient sur ce single et aussi leur projet par rapport au Sénégal on est très content de parler avec euh, vous. Aussi, on a EXO qui parle de la culture espagnole et culture sénégalaise. parce que nous, on travaille sur l'interculturalité. le développement et la coopération. Donc on a fait ce morceau pour dire que nous tous dans le monde nous sommes égaux, que euh, qu'il n'y a pas de différence, que tous sommes personnes, on est des personnes. Euh, par exemple, euh, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui vivent en Europe, il y a des gens qui vivent en Africains, euh, les Européens. Mais si on regarde tout nous tous, on est des personnes, on, a euh, la même sensation. Et pour ça, on a fait ce morceau pour pouvoir démontrer au monde entier que, la musique, c'est un langage universel et que nous, on a tous les mêmes, sensations euh, et, aussi tous, on veut vivre libre, avoir du travail et aussi euh, éduquer nos enfants. pour le moment, on est en train de préparer euh, un grand tournée au Sénégal, euh, parce que ça, c'est un très grand projet qui s'appelle Nyun Atien. Donc, c'est un projet euh, qu'il y a des Sénégalais, il y a des Allemands, il y a des Espagnols, il y a des Français. Oh, mais tout, on est en train de préparer ça pour travailler sur l'interculturalité et préparer ce tournée au Sénégal à partir mois de septembre incha la fin de votre journal la culture. Merci de l'avoir dal leen a jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy doore ak lalu waxtaan bi nga xam ne comme nat amaloon na ko di commission nationale UNESCO bu Sénégal ngir waxtaanee convention 1970 bi nga xam ne mooy yoonal lépp lu jëm ci wàllu trafic illicite de biens culturels naka la ñu def ba suñu réew mun a renforcer capacité am waaye it ñu nekk ci wàllum culture rawatina ñu yëngu ci wàllu frontières yi gën a xam lan mooy objet culturel ak nan lañ koy aaree nañ ci déglu docteur Massamba Gueye. dañ lan la ñu fexe ba Sénégal lii nu seetlu fan yi ku dem sàcc dara Cameroun baa nga sàccee ko feneen da fexe ba rawale ko ci fooru Sénégal nan la ñuy fexe ba ni ñuy teyee drogue bi ni ñuy xeexee drogue bi ni ñuy xeexee armes yi circulé ñu xeex ba Sénégal du doon. réew mi nga xam ne ku bëgg rawale fi ngay ñëw ku bëgg a jàllale fi ngay ñëw donc jàllale nag aaday jaabur cosaani jaabur fekk réew moo xam ne yor nañ seen seen xaralay bopp dem Casamance dugg ci bois sacré bi sàcc la nga xam ne moom la ñuy la ñuy la ñuy yaree gone yi nga yóbbu ko dem di ko jaay ay tubaab loolu ku ko def dañ la war a jàpp ne reykatu nit ndax foofa ñu nga xam ne moom la ñuy lëlalee xale yi la fa nekk ci ay jumtuwaay du ay fowukaay yow nga jël ko jox ko ay tubaab ñoom ñu def ko ay fowukaay def ko ci seeni i musée def ko ci ay verre ku ñëw paas seetaan ñu jël xaalis ba def seen poche yu mel noonu la ñuy xeex. loolu moom moo waral ndaje bi. ba mu siiw ba nit ñi gën koo xam acteur culturels yi juges yi euh, douaniers yi nekk aéroport. ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir dëkk yi chef de village yi waa dëkk bi kenn ku nekk gën cee gindi ko ba gën a xam ne loolu am na ndax loo xamul mënoo ci taxaw tey jii ba bu nu gisatee kuy génn aéroport mbaa kuy génn seen dëkk dem fekk lu seen néeg boo xam ne dañ ne néeg bi fii la Maba Jaxu Ba doon fanaan nit dem dugg fa waa kër gi duñ jël pot bi may ko nekkoon nga fàttali kooku danañ ko fa bàyyi ba bu ëllëgee nit xam ko bu nit jógee fii dem Jurbel ñu ne la néeg bi kat la sëñ Touba mujjoon nga dem ñu ne la euh, Saint-Louis ñu ne la maam Alaaji Maalik kat Aliou bii la fi mujjee bind nga xam ne dañ ko faa war a bàyyi ku ñëw di ci barkeelu barab yooyu nag ak jumtuwaay yooyu moom la war a taxaw ba loi bi fi ne di loi bu àdduna bokk ak bi Sénégal bokk képp koo xam ne jël nga loo xam ne nit ñi dañ koo war a jël di ko fàttali ko seen bopp di ci gën a nitee la seen bopp ku k ñu jóg nag ñu dal ci sa kaw waaye nit ñi xamuñu ko siiwal ko nag gën a tax nit ñi xam ko moom moo waral ndaje mi tey. niki noonu bokk na ci waxtaan yi ki nga xam ne moo di professeur Malick Ndiaye jiite musée IFAN bu université Cheikh Anta Diop. atelier bi nga xam ne moo ñu dajale tey muy atelier genre renforcement de capacité pour. Euh, ñu mën a jàngat gën a gëstu euh, convention 1970 bi nga xam ne nii mooy prévenir trafic illicite des biens culturels Euh, atelier boobu commission national pour l'UNESCO moo ko organisé ak coopération direction du patrimoine culturel ak euh, euh, musée des civilisations noires bi nga xam ne expert yu bari bokk nañ ci musée Théodore Monod taxaw ci ak yeneen musée ak yeneen institution dafa nekk atelier bu am solo parce que dañuy yàgg xeex sàcc aadaab euh, cosaan yi nga xam ne moom moo nekk ci musée yi objet yi nga xam ne nii rek fa génn pendant la période coloniale ba pare di continuer génne parce que trafic bu jeex sàcc yi moom dañu dañu dañu sonn donc dañ ko yàgg xeex mais dañuy constater quand même que nii malgré le fait que yàgg nañ ko xeex am na ay jafe-jafe da am am ay manquement faiblesse yoo xam ne nii il faut que ñu gëstu ko xam lan moo ko waral ba pare daat koy euh, résoudre alors li ñu gis mooy euh, du fekkee benn diagnostic dañ ko cee war a def manque de coordination bi nga xam ne dina am euh, loolu tamit day faciliter euh, pillage bi donc atelier yu mel nii nga xam ne day réunir professionnels yi de force defence et sécurité réunir ñi nga xam ne ñooy administrer culture bi réunir professionnels yi nga xam ne ñuy ñooy liggéey ci musée yi ñoo ñëpp bu ñu àndee def benn diagnostic am benn synergie ak benn vision commune mm-hmm. dina tax suñu xeex bi nga xam ne moom la ñuy xeex pour sàmb suñu maam yi li ñu fi bàyyi ba pare pour sàmb li nga xam ni moom la ñuy produire heure bi euh, actuellement dina gën a mën a dëgër mm-hmm. donc loolu moo tax jóge ci loolu wax ci musique daal leen présenté bi ñu dippee sama nene nga xam ne les frères Thioune ñoo ko def euh, ñi nga xam ne nag euh, fu mu nekk nii ñu ngi yëngu ci lépp lu jëm ci wàllu musique waaye dañ ciy boole li nga xam ne mooy inspiration hispanique bi dañu déglu Xaali Thioune mu wax ñu nu ñu def ba réaliser clip bi le ak seen mébét jëm ci wàllu fii ci Sénégal. fii pour pour woy bi ñu def entre nga xam ne Sénégal ak Espagne quoi. ba fii euh, ñun par exemple li ñuy liggéey daanaka ñun euh, par exemple ñu ngi liggéey pour promouvoir interculturalité ak ak ñu gis ne woy bii entre Sénégal ak Espagne am na lu bëri lu ñu lu ñu lu ñu niroone daal pour wane ne àdduna bi ñëpp ñoo yem te nit ñi ñëpp benn sensation lañu am bien que ñii mën nañu riche ñii mën nañu pauvre ñii mën nañu ñuul mën nañu xees mais ñëpp ñoo bokk même sentiment ku nekk da nga bëgg euh, da ngay ku nekk bëgg nga vivre ma ku nekk bëgg nga am liggéey bëgg nga yóbbu say doom école donc am nga même sensation yërmande bi ku nekk bi nga am moom ci sa doom moom la ñëpp am donc nit ñi nag xaw a différent parce que euh, ñii mii nii lañ mel ñii nee lañ mel la parce que léegi dafa bëri ay classe sociale mais li dañ ko woy ngir bëgg a wane ne amut classe sociale li wane ne àdduna bi ñun ñëpp benn lan loolu moo tax série bi tudd yéen ak ci bëgg parce que ñu ngi préparé de très grands projets au Sénégal dali nag dañu nekk ndànk-ndànk di liggéey ci projet bi daal parce que lu mag la mais incha allahu rabbi parce que le 24 bi lañu koy inauguré fii ci benn théâtre bu mag en Espagne ci théâtre yi gën a mag su ne nii sax ante yi fees na su ne nii yëpp fees na léegi nag bu ñu ci paree incha allahu rabbi xam naa euh, ci mois de septembre bi daal bëgg nañu commencé ñëw senegal aussi tamit bëgg def benn tournée au senegal sama nene maam Seya ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi